asalaamaaleykum mbokk julli di mbokk taalibe yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo di leen jox seen wàcc wàccuwaay ñu ngi leen di ñaanal yéen ñi nga xamante ne yéen ñu déglu précisément fii ci Univers Info TV eh, jàmm fekk leen fi nga xamante ni eh, fa ngeen nekk te ànd ak yéen tey nag ñu ñëw ci li nga xamante ni moom mooy eh, li ngeen di soxla toujours muy li nit ki di soxla pour mën a am dundam gu normal dundam gu jaar yoon ñu seet si tey. fii ci Touba kilifa gu mag kilifa goo xamante ni macha allah mu ngi dimbali Sénégalais yi fépp fu ñu nekk partout dans le monde muy Serigne Abdou Fatah borom euh, ñetti njàkk yi ak euh, ki nga xamante ni mooy borom taaru yaram boo leen déggee loolu nag mooy ñaari fonction la yor yoo xamante ni macha allah fu mu ci laal rek nga ni eh, bii la mën a gën a mëne waaye yooyu yëpp di leen ci ñëw ci biir waxtaan bi mais bala ñoo sori dañ koy bàyyi mu nuyoo yéen bokk internet yi ñu soog di tàmbale li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi sëñ Abdou Fatah ñu ngi lay siyaar. bisimillahi rahmaani rahim mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziar di jiital ci nuyoo bi xalifa général de Mouride sëriñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal gudd fan ak wér di ñaanal bépp kilifa diine ak kilifa aada di ñaanal waa réew mi di ñaanal waa biti réew di ñaanal suñu way jur yi nga xamante ni dañoo jiitu suñu borom xare leen àjjana ak bépp mboolem jullit buñ fa fekk ak ku leen fa fekk kon ñoo ngi lay ziar baax baax di leen dalal ak jàmm pour ñu dugg ci waxtaan bi. macha allah sëñ Amadou Fata ñu ngi lay jaaraat bu baax di la jox sa wàcc waay ñu ñëw rek ci li nga xamante ne moom mooy bii waxtaan bi ci ñaari pàcc. premier pàcc bu njëkk bi mooy li nga xamante ni mooy mbirum euh, faj wolof bi nga xamante ni yaa ngi koy def yàlla may la ci nga xarañ ci loolu macha allah. lu ci mel ni euh, ndoxum siti ak hémorroïde je pense que ñaar yooyu bokk na ci yi nga xamante ni ñoom nga gën a gën a gën a mën a gaaw a faj. est-ce que mën nga ñu si ñëwal. waaw loolu boo ñu ko laajee dañuy am sawarte ak kontaante bu baax a baax. ci mm. tontu la ci. Mm. ndaxte maanaam faj mi nekkul ne dañoo bëgg a faj rek di faj. Mm-hmm. nekkul na tamit dañoo dégg riiram faj di faj. Mm. ñun dañoo dugg ci euh, dañoo gane àdduna fekk suñu waajur di xett li jaamu yàlla yi ci lu jëm ci wàllu fajam cosaan. Mm-hmm. rawatina tawat yooyu nga xam ne moom nga tudd muy lu jëm ci tooke siti ak yeneen xeeti tawat yoo xam ne moom la làmbool. kon daal li nga xamante ni moom laa la mën a wax mooy faj mi dafa nekk loo xam ne suñu wayjur di sëriñ Baara Mbasin mhm. moo ñu ko dénk mhm. waaw yàlla defee nag mu génn àdduna ci lañ continuer di doxal faj mi waaw waaye faj mi moom maanaam moom moo ñu si tàggat waaw ba xamal ñu garab garab bi mooy garab sàngam garab bi mooy garab sàngam garab bi mooy faj li ak lii ak li mhm. ba yàlla def daal ah suñu borom a ngi def tawféex bu baax a baax a baax. Mm. pour daal ñuy xeetali jaamu yàlla yi bu baax daal ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu ndoxum siti ak mm. yeneen di xeet yi nga xamante ni moom la làmbool. Mm. ndoxum siti ak li nga xamante ni moom mooy hémorroïde ak estomac yan garab nga leen di fajee en base de quoi la ak ci ñaata temps ngeen leen di mën di traité. waaw xam nga siti dafa nekk loo xam ne maanaam dafa jar di taxaw di leeral toujours ndax ñu ci baree baree bare dañuy toog maanaam damay faj siti damay faj siti te boo dee xool. dañoo gën a siti ñëpp. waaw jeex na <laughs> waaw tey booy xool maanaam City doonut lu ñuy faj koo gis muy dox ci àdduna am na City maanaam niñ koy mën a expliquer pour nit ñi mën a comprendre mooy City ak deretu doomu aadama bi moom la suñu borom moo ñaale kon deret mënul dem sans siti City mënul dem sans deret waaye nag siti day feebar comme ni deret di feebaree. Mm. da ngay toog ak nit waaw ne ko eh, nga dégg ñu ne la diw kat dafa am feebaru deret siti tamit dangay ngay toog nit ñu nit nga dégg ñu ne la kat nit ki dafa am maanaam siti comme niñ koy waxee dafa am siti rek lañ lay wax waaye nag siti boobu dafa am beneen jàngoro boo xam ne tey bu ñëwee moom tamit day lëkkaloo ak moom kon jàngoro boobu moom la ñuy faj waaye du siti jàngoro boobu nag mooy tooke bi nga xamante ni maanaam mooy ñëw di manipuler deret doomu aadama bi waaye du siti da nga daan dégg suñu maam ñi daan la wax naan ku amewut siti da ngaa ngaana waaw siti ñëpp ko am ku amewut siti da ngaa ngaana kon siti doonut lu ñu faj loolu nag moo tax nit ñi ku ci nekk fu ci nekk yaa ngay tës tësi dem di wëri kuy faji siti kuy faji siti da ngay wër ba sonn waaye doo ko gis mm. te tooke boobu bu xasee ba branche wu ci yow nekkul ne benn garab moo koy faj nekkul ne ñaari garab moo koy faj mm-hmm. faaw nga maîtriser garab xam bu baax garab mën a composer garab ci anam bu sell mm-hmm. anam boo xamante ni nit ki da koy jël di gis ay résultat bu wóor te leer naññ waaye damaa amee siti rek ñu ne la dama jënd reeni dàng nga xooj di naan wala dama ut wëttéenu bët nga xooj di naan dangay ngay naan ba son doo gis dara ndax tooke boobu nga xamante ni moom laa lay wax bu commencé ba commencé di manipuler dret bi maanaam bu yàggee la muy njëkk a def ci yow moom mooy day nasaxal rein yi mën ngaa am fanweeri at ku la xool yaakaar ne am nga juróom fukki at dalay màggatloo parce que deret bi ni mu war a circuler dëgg-dëgg du ko def léegi nag bu ko defee nag aywo tooke bi day commencé di installer yeneen tawat ci sa biir tawat ji mi njëkk a branché ci yow moom mooy jàngoroy kajoor moom la ñuy wax hémorroïde hmm. maa la wax loolu moom hémorroïde mooy taaw mooy taaw bi waaye dafa ci biir hémorroïde tamit dafa amaat yeneen xeeti tawat yoo xam ne mu ngi ci biir hmm. waaw muy jàngoroy kajoor boobu ñu koy wax hémorroïde maanaam dafa nekk moom tamit tawat yoo xam ne mook siti mënoo faj euh, euh, siti bi mënoo faj jàngoroy kajoor sans siti hmm. kon dafa nekk loo xamante ni ñoom ñaar tey képp koo xam ne yëg nga ci benn tawat ci sa bopp mooy da nga amee tooke siti wala danga am jàngoro kajoor booy faj bëgg mu wér fajandool ñaar yëpp mm-hmm. waaw waaw ndax yàgg ngaa dégg ku naan la man de amee naa hémorroïde faj naa ko ba sonn mënu maa fexe ba gis ay mm-hmm. dégg nga léegi nag da ngay amee hémorroïde di sentir sa biir di ballonde sa ndigg di metti sa bopp di metti yaa ngi dégg say bët di lëndëm parce que jàngoro kajoor boobu ma lay wax moo tooke siti bi bu ñu nekkee ci yow bu yàggee day dérégler tension bi mm-hmm. waaw waaw tension mën naa normal tey bu subaa nga xool ko mu mu mu mu mu infecté yaa ngi dégg léegi nag ci biir loolu nga xamante ni noonu lay manifesté woo di la di la sonal dafay nekk loo xamante ni euh, mënoo faj benn bi bàyyi benn bi mhm. da ngay jëlandoo ñaari garab yëpp mhm. faj tooke bi faj fi jàngoro ji toll ndaxte jàngoro kajoor boobu nga xamante ni tey moom moo nekk sa biir nekk lu naqaree faj naqaree traité maanaam la koy sabab tooke bi la tooke bi nga xam ne mooy dox ci deret bi ndax ni ma la ko mën a expliquer dafa mel ni maanaam lu ñu branche li ci sa sa yaram léegi nag bu ko defee day attire sa deret di ko dugal ci picc bi picc bi mën naa nekk sa biir lu mat 10 ans ferme hmm. doo ko sentir maanaam danga ko sentir nii di dem ak ñëw waaye benn jour ngay laal loo xamante ni bañ na ko rek mu kalaate la fa nga tëdd doo fa mën a jóg sa ndigg day metti yaram bi day diis mu nasaxal rein yëpp say tànk di tàng jër yaram bi fu ñu la laal muy métti jàngoro kajoor ak tooke siti bu ñu àndee ci nit mënoo faj bi bàyyi bii faaw nga fajandoo ñaar yëpp loolu nag borom xam-xam bi moo ko mën a xam. d'accord yow mi nga xamante yaay borom xam-xam bi te di ci def yu am solo. Mm-hmm. est-ce que mën nga ñu ñëwal ci naka lañ koy fajee yan garab ngay mën a utiliser pour mën a dimbali doomu aadama yi ak ci ñaata temps nga koy fajee. waaw macha allah loolu dañ ci sawar lool. Mm-hmm. ndaxte garab yi nga xamante dafa nekk loo xam ne juróom-ñeenti garab la man moom laa koy faje muy tooke siti bi te garab yi ma lay limal garab bu ci nekk dafa am lu muy faj ci nit ki. ak dosage ak dosage am te da koy composé maanaam garab bi ñu naan farxañ ay xarañ cox dimbali doogoor gën gi dëkk su lukum ngaam was-wasoor bu ñu koy lim duñ fi jugee. Mhm. garab yooyu ñun dañuy dawal suñu oto dem ci àll bi jëndi ko. ci anam bañ ko war a jëndee ñëw defar ko ci anam biñ ko war a defaree képp koo xamante ni suñu borom def na ne tawatu tooke siti bii ñuy wax mu ngi ci yow ak jàngoro kajoor bi boo dikkee bu ñu la joxee garab yi incha allahu rabbi da nga ciy gis tawféex bu baax a baax a baax a baax waaye daal li ma la mën a xamal mooy lii di jàngoro kajoor ak tooke ak euh, tooke siti ak yeneen xeet yi yim làmbool nag nekk na loo xamante ni lu naqaree comprendre la lu naqaree faj la mm-hmm. waaye nag lii ma la ci wax moo ci nekk. ndax damaa am hémorroïde mën ngaa wër ba sonn tey boo xool quatre vingt di pour cent tey ñu ngi koy faj ne leen damaa am jàngoro kajoor boo demee garabu hémorroïde rek lañu lay jox duñu la jox li nga xamante ni tey moom mooy sabab jàngoro ji hmm. te jàngoro bu fekkee ne da ngay faj fi tawat ji toll bàyyi lay sabab tawat ja saa boo bàyyee garab gi ngay naan maanaam day mel ni mosoo naan garab la nga doon yëg nga yëgaat ci jàngaloy kajoor googu dina dem ba la li nga xamante ni moom mooy faiblesse sexuelle. waa da koy def. Uh-huh. parce que xam nga mooy li ma la wax léegi. tey bu la jàppee dëgg-dëgg mën ngaa am fanweeri at mu yóbbu la juróom fukki dalay da lay màggatloo day nasaxal ren yëpp parce que li mu njëkk a def moom mooy day téye ndigali te góor moom bu fekkee ne ndigam a ngi téye ma ngi euh, euh, fonctionné wul maanaam. day wàcc lal bu yàggee. loolu musiba la noonu la demee. yow yow yow faiblesse sexuelle da nga koy traité ak ci ñaata temps tamit nga koy traité parce que boobu bëri na ñoo xamante ne ña ngi ciy naxaatee seen genre yi dañuy wax ne dañuy traité li nga xamante ne moom mooy faiblesse sexuelle bu ñu encaissé xaalisu jàmbur jox la ay produits yoo xam ne kenn xamul nan lañ ko composé te du am benn résultat yow est-ce que mën nga ñu cee wax lu wér. waaw mooy li ma la wax rek xam nga bu ñu delluwaatee ci ginnaaw da nga daan dégg suñu maam yi nga gis koo xam ne da daan am 80 ans maanaam di dem tool di ñëw. du la jàmbat ndiggalu yu metti du la jàmbat tànk yu metti du la jàmbat yaram buy diis la ko waraloon mooy dañoo xamoon garab li muy def ci nit ki daan jëfandikoo garab ci anam bu sell anam bu baax ba nga xamante ni du am benn tooke boo xam ne day nekk seen yaram yaa ngi dégg kon nit ki nga xamante ni dafay jàmbat li nga xam ne tey moo di wàllam faiblesse sexuelle mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. li nga xam ne moo ci gën a gaaw mm-hmm. li ci gën a gaaw laa lay wax te ñun ñu koy ñu koy ñu koy faje di ci am ay résultant ñu jox ñu ci teraanga bu nekk mooy lu jëm ci wàllu dugub lañ koy liggéeyee. dugub menn waaw ak lu demee ni ki ak lu demee ni ki sungufu ñàmbi ak lu demee ni ki ngeer ndax ñetti matières yi rek laa la mën a limal waaye nag leneen li ciy dëxëñaatu moo ëpp mm-hmm. ay secret la dañ koy côté mm-hmm. waaye la wéeta wër mooy ki ma gën a yittewoo man neel wër naa ba sonn lu nekk jël naa ko mënumaa fexe ba maanaam sama ngóora ni ma ko war a amee dëgg-dëgg ma am ko mhm. soo dikkee garab gi ma lay jox boo ko jëlee dana mel ni fas buy jël dugub ak fas bu dul jël dugub mënuñoo ànd fas buy jël dugub ak fas bi jël ñax mhm. boo leen takkee ñoom ñaar nga bàyyi leen ci yoon wi am naa ci yaakaar ne tey boo doon teg yow sa xaalis fas bay jël dugub ca nga koy teg d'accord ndax mooy ëpp avantage parce que war a loolu mooy maanaam dugub dafa am secret boo xam ne suñu borom da ko cee def te loolu faw nga nekk borom xam-xam mën a xam loolu. produit boobu sunguf lay doon wala am ndox la wala lan la. waaw sunguf la mais sunguf bi dugubu sunal laa la wax moom la. Hmm. ak yeneen composants yu ñu ko booleel. bu dee ngeer bii ma lay wax ngeer bi defuñ ci xas defuñ ci bant defuñ ci reen xob bi la mu ngi mel ni yow mu bëgg a ataaya dem jël fële sa ataaya ñëw def boo bëggee jëfandikoo jëfandikoo. noonu la demee. traitement lay doon. traitement lay doon ci kaw sa tawat ni muy ñëwee ci yow parce que maanaam walla maanaam wàllam faiblesse sexuelle li koy joxe euh, lu ci ëpp euh, fatigue général da koy def maanaam nga am coono bu yàgg seeram day dem ba nga xamante ni maanaam saw yaram day nasax parce que yaram tamit bu noppaluwul nga bëgg koo tegaat leneen loo xamante ni attanu ko danga koy sonal mm-hmm. dégg nga. beneen bi ci des mooy jàngoro kajoor bii ma lay wax hémorroïde 90 pour cent moom moo leen téye ak tooke siti parce que bu ñu àndee dangay gis koo xamante ni sëñ bi da ngay toog ak moom nga gis weyam yi di lakk di ñuul mu leer na la kii dafa am tooke bi. Mm-hmm. léegi nag li jàpp ay wee di ko lakk muy ñuul. bu nekkee ci biir deret doomu aadama bi te dañut kooku lan la fa mën a jur lu mu fa mënta jur amut. Mm-hmm. ci doomu tooke. Mm-hmm. dégg nga. kon li may wax doomu aadama yi mooy. maanaam man mësuma nangoo toog di def ay émission ci hmm, rajo dëgg la wala ci télé wax dëgg yàlla am lii dañ ma cee forcé dëgg la moo tax ma def ko ndax hmm. li ma yor dafa nekk loo xam ne hmm. askan bi dañ koo soxla man soxlawul nit ñi xam ma nañ xam man li ma yor man am na solo am na solo léegi produit bi maanaam faiblesse sexuelle bi ci ñaata temps nga koy faj ak garab gi ndax cherul problème boobu tamit day day taxaw ci yéen ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy clients yi seen garab des fois day cher <laughs> waaw waaw loolu aussi bëgg naa nga ñëw ci. non seerul xam nga nit ki li nga xamante ni moom nga mën maîtriser ko euh, yaakaar naa ne waroo cee teg. Mhm. nit ki loo xamante ni da koy sonal di ko gaañ. dégg nga. Mhm. am na ñoo xam ne tey ñoom li nga xamante ni moom moo leen tax a jóg mooy. Mhm. na tëgg tey mu tas tey jeex na tey ku nekk wëri leneen. ñun nag defewuñ noonu. ñun képp ku am ak ñun connaissance ci kattanal suñu borom. ñu jëflante ak yow danga gis ay résultant boole ñoo keneen mm-hmm. ñun loolu tey moo ñu may fii ñu agsi ñu agsi fi macha allah façon teraanga bu nekk loo xalaat ci àdduna ci kattanal suñu borom doomu aadama yaa ngi ñu koy defal mm-hmm. kon li nga wax ne maanaam tey garab yi dafa cher seerut ñun mm-hmm. man samay garab man seerut ndax maa ko utali sama bopp damay jël gasoil bu doy def ko ci sama oto dem ci àll bi fii ba Guinée Bissau dama fay dem di fa uti ay garab man résultat daf maa jar lu nekk. kon li nga xamante ni moom laa lay wax mooy képp ku ma seet si wala nga def ak man contact nga ne damaa am lu jëm ci wàllum xeetu tooke siti wëral ba sonn fu nekk dem fa damaa am jàngore kajoor mënuma fexe ba mu wér muy hémorroïde ci kattanal suñu borom boo dikkee garab bi ma lay njëkk a jox bi ma lay jox bu dee jàngore kajoor bi la. boo ko jëlee tey 24 heures. bu la warut ay résultat ñëwal ma joxaat la sa xaalis la nga xamante ni moom lañu ñu waxante woon man ak yow mu néew mu bari ndax man li ma yor man dama koo xam dafa nekk loo xamante ni ndono la te ndono lu wér la ma toog ci ñu am ci tamit ñaanuk Serigne Saaliw ndax képp koo xamante ni nga may ma foofu tuuti rek maanaam nekk nga Xelkom 2002 ba 2007 sama garabi yi waajur Serigne Bara fekk na la foofu ñi nga xamante ni nekk nañ fa 2003 ba 2007 ña ngi may dégg bu baax a baax a baax ndigal loolu Serigne Saliou moo ko joxoon nekkul ne de moom day jël ay garab rek dem di fa joxe déedéet. Hmm. ci biir waxtaan bi nee naa la. Hmm. man damaa gane àdduna fekk sama waajur daan dem bitim réew façon réew bu nekk dem na fa di xetali jaamu yàlla yi. Hmm. muy Serigne Baara Mbasin. dégg nga. 2002 bi mu toogee li nga xamante ni man moom laa def nii. muy fësal li nga xam ne mooy wàllu fajam cosaan xam ne lu mu yor moom lu dëgg la lu wér la moo ko fi njëkk a def fii laata mu koy def booba tout tànk laa woona ma ma ñëw mu ne ma dama am yéene toog ci réew mi jëflanteeg waa réew mi dëgg gi nga xam ne moom la ma suñu borom dénk mu jëm ci wàllam fajam cosaan kon nag ni ñu def mooy bala ma fay yëngal dara dañuy ànd ñu dem ci sëriñ saalihu ñu ziar ko ma laaj ko ci ndigal su ma ci joxee ndigal ma siiwal ko te képp ku teg fi sa tànk ci kàttanal suñu borom dinaa la faj. Mhm. incha allahu rabbi mhm. ci la ñu ànd maak moom ñu dem ci Serigne Saalihu mhm. bi ñu demee ci Serigne Saalihu mu waxtaan ak moom wax ko li nga xam ne moom la bëgg ci wàllam fajam cosaan mi wax ko tamit fi mu jot a jaar sëñ bi ñaanal ko ci ñaax ko ci jox ko ci ndigal ne ko bis ni ko tey jox naa la ndigal ngay jël garab yi di ma ko yóbbul xelkom. Hmm. wallaay lazim dañ daan taxawal fii oto garab ki di maam góor Diop ma may dégg kër sëñ ba nekkoon hmm. ak mbëkk néegi sëñ bi ñëpp bu ci mel ni sama waajur sëñ ba sekk ñoom ñëpp hmm. li may wax nii ña ngi koy dégg képp koo xamante ni amaan nga fa tawat bu lañ joxee garab gi ci barkeb Serigne Saliou da ngay am tawféex kon nag mooy li nga xamante ni daal mm-hmm. ah faj mi noonu la dikkee sëñ bi macha allah macha allah ci néegu sëy it ni góor ñi sonnee noonu la soxna yi sonnee am na si jigéen ñoo xam ne dañuy sëy ay ati ati at duñ mën a am doom wala ñu am doom taxawaat lu yàgg duñ ñuy soog di maanaam day metti si ñoom pour ñuy am ay leer te sëy loolu tamit da cee da cee bokk loolu it lan nga ñu si mën a wax lu wér waaw muy taxawaay xam nga jigéen ju taxaw mooy comme li ma la wax ni rek xam nga li nga xamante ni tey moom moo koy ëpp lu koy def moom ci côté am mhm. mooy jàngore kajoor bi ak tooke siti bi bu ñu àndee mhm. parce que nee naa la bu yàggee day tëj trompe bi tooke siti boobu day tëj tromp bi léegi ci biir wax nee naa la tey li nga xam ne da jàpp ay wee di ko lakk muy ñuul mhm. di jàpp aw yaram di ko yàq nga xam gisoo nit ki mu xees pecc nga gisaat ko mu ñuul kukk mu ne la kat man dama am tooke siti mais li génn ci yaram bi nekk ci biir yaram bi kooku bu nekkee ci biir bi mais du fa bàyyi dara loo xamante ni dafay placé wu tàngoor woowu du fa bàyyi dara. Hmm. pour ba nga mën faa jël dara. Hmm. jigéen ñu bari buñ fajoo tooke siti jàngoro kajoor wallaay lazim dañu am tuut tàgg. incha allah man nit ñëw na fi. Hmm. taxaw lu mat quinze ans. fukki at ak juróom. dégg nga. te ngi ak boroom këram borom këram di amul njaboot te ma mënul am njaboot bi mu dikkee fii suñu borom def ma waxtaan ak moom. yaa ngi dégg. seetal ko ndax man côté boobu ci benn côté. bu ma la digloo rek bu fekkee ne lii biir na ma ne dafa am wenn leneen loo xam def koo laaj damay dund yow ci loolu waaye ci benn côté su ma ci waxtaan yow rek dinaa xam ba xam lii lan moo la ko def. su fekkee dafa ajo seet ma seetal la bu fekkee ne maanaam dama leer na tey consulté naa la ci suñu biir wax dinaa xam yow tooke siti la wala leneen la. bi yàlla defee ma jëflante ak moom suñu borom defal ko tawféex. te toog na lu mat 15 ans yoo xamante ni wallaay lazim amatul tànk. est kon li nga xamante ni moom moo di euh, lu jëm ci wàllam. Mhm. Euh, jigéen ju taxaw. Mhm. kooku dañ cee yor ay secret yu wóor te leer naññ incha allahu rabbi. képp ku taxaw boo ñu seetsee. Mhm. dinañ la ci danañ la ko saafaraal ci kattanul Serigne Saliou. incha allah mbokk yi ñu ngi toog ak ki nga xamante ni mooy sa Abdou Fatah boroom ñetti euh, njàkk yi. ak borom taaru yaram ñuy waxtaan ak moom nag ci jafe-jafe yi nga xamante ni moom la nit di am ci dundam parce que feebar ak wér ñoom ñoo ànd waaye yàlla dañoo wàcceel ay doomu aadama yoo xamante ni dañuy fajal li nga xamante ni moom mooy tawat yooyu euh, sëñ bi il faut nga jàllale seen numéro joxe adresse bi pour ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan au bas de l'écran ñuy gis li nga xamante ne moom mooy sa contact waaw man daal li ma wax mooy bala maa joxe sama numéro mooy man ki ma gën a yittewoo mooy ki nga xamante ni nee nga wër naa ba sonn mënumaa fexe ba gis ay résultat mhm. kooku moom a gën a tax a jóg gis nga ki nga xamante ni tey yaramam day faral di xasan mënul mhm. fexe ba am jàmm subaa ngoon guddeeg bëccëg muy xasanu yaram bi di génne ndox yaram bi di faral di yàqu tànk di faral di xar bopp bi di faral di def ay góom nopp yi di faral di xasan mu dem ba di ko def ba ñuy faral di bënn di metti di ko def ba di xasan di jooy di xong cur ñooñu laa gën a yittewoo wallaay lazim mm-hmm. ñooñu laa gën a yittewoo kon képp koo xamante ni soxla nga ko mm-hmm. wala bëgg ngaa jël sama numéro jëlal 77 218 95 79 wala nga woo ma ci 76 557 10 39 maa ngi dëkkee Touba Xayra 2 mm-hmm. képp koo xamante ni ah soxla nga ma nga nekk bitim réew baa nga nekk ci réew mi dinañ faxe ba nga jot say garab mm-hmm. ak kum man di doon ak réew moo man di nekk mm-hmm. ak foo man di nekk ci Sénégal incha allahu rabbi bu ñu déggantee nga ne damaa sonn jaaxle naa fu nekk dem naa fa mm-hmm. na ñu déggante rek incha allahu rabbi ñu fajal la ko ci kattanal suñu borom incha allahu rabbi ñu fajal la ko ci kattanu suñu borom dañ koy tëjee ak li nga xamante ne moom mooy deuxième partie bi eh, di euh, mbirum diw yi saabu yeeg frotté yi ndax côté boobu it jaar nañ ci boutique bi xam naa image yi dina jaar ci PC yi macha allah nga ciy defar ay produit yu doy waar doy waar doy waar parce que ci diw yi gis nañ ay police yi nga xamante ni da nga koy apporter nit ñi savon yi gis nañ gommage yi frotté yi gis nañ raay mu li raay mu sedd la je pense noonu lañ ko tuddee mm. euh, gis nañ aussi diw bopp yi nga xamante ni gars yi dañoo am problème mu karaw fu ne ñu dem fa duñu am karaw sa diw bopp yi di ci def ay résultats yu extraordinaire mm. tënkal ñu loolu lépp ci ay quelques minutes rek. bala ñoo bala ñoo daaneel jotaay bi. waaw waaw waaw euh, loolu dañ koy tënk rek. Mhm. xam naa ne waxtaan boobu maanaam munu fee xaj. Mhm. ndaxte lu mu ci man di doon ci wàllum garab. Mhm. nee naa la suñu borom daf la am lum ñu ci may. lii maanaam euh, ndimbalal sëriñ Saliou la. ndax dama jàpp ne sama waajur ba ma ànd ak moom dem ci kanamu sëriñ Saliou mu ñaanal ñu rek booba la lépp euh, nekk. bi sama waajur génnee àdduna. nee naa la ci laa mhm. mbir yi di commencé di ñëw ci man lu jëm ci wàllam yooyu ngay wax muy diw yeeg saabu yeeg yooyu. Mhm. tey nee naa la euh, garab bu ma ko xoolee xool garab bee maanaam ñaari matières yi. Mhm. man ci laay xam ne lii boo ko boolee mu jox la lii. macha allah xam-xam boobu la ma suñu borom defal. ba tax na dañ ciy liggéey lu jëm ci wàllam euh, diw bopp jigéen soxna yi nga xam ne tey dañoo dañoo dañoo bëgg karaw karaw jafe leen. Euh, seen i bopp di faral di xasan fu ñu toll. Mhm. seen karaw di crasse. Mhm. seen der bopp di faral di di sute. Mhm. diw ba nekk ñu koy diwoo nu ñoo faxe ba gis ay résultats. dama na la boo dikkee produit bi ma lay jox. ci kattanal suñu borom boo ko laalee vingt 24 heures. bu fekkoon ne dërëb bopp bi day xasan. wala muy crasse wala nga peñe muy rose loolu arrêté wul ñëwal ma joxaat la sa xaalis. est-ce que wallaay lanzim. te nee naa la boo ko jëlee lu karaw dëgër bopp dëgër bopp vingt cinq jours ni ma la ko waxee nga jëlee ko noonu vingt cinq jours bu fekkoon da ngaa léttu boo firee koo insha allahu rabbi képp ku xam ne jege na na dana leen loo looy diwoo sa karaw gi hmm. karaw gi dina nay karaw gi dina dund karaw gi dina liis ndaxte plante dafa nekk loo xam ne maanaam wallaay bu ko ñëpp xamoon dana daw jub jëmaat ci barki Serigne Saliou te day naturel du am effet secondaire amul benn effet secondaire hmm. parce que li nga koy composé ay karité ay limon ay baptrine yaa ngi dégg bul yëggale dañ lay sàcc non eh, eh, dafa am <laughs> leeral la foofu uh-huh. xam nga tudd naa limon uh-huh. mais ku man na dem jël limon boole ko karité diw sa bopp da koy wat ndaw boobu bu weex gis nga no gis nga euh, dafa am benn toxine bu nekk ci limon uh-huh. boo xam ne tey bis boo ko laalee def ko sa karaw boole ko karité di ko diw te xamoo dosage bi nga war a jël karaw gi da ngay xëy rek muy ruus di dem day mm. ruus ba jeex tàkk nga naan lu ma dal te fekk na mm-hmm. maanaam limon ba nga xam ne moom nga jël boole ko ak carte di ko diwoo loolu moo la koy def léegi nag yooyu nga xam ne ñun moom lay jël maanaam moom la jël composé ko te bu ci nekk ak doosaasam mm-hmm. maanaam yi ma la wax nii bii dañ ciy jël lii bii ñu jël ci lépp ñu boole ko composé ko mm. maanaam mu nekk diw boo xamante nii Euh, résultat jooni jooni la lay wan moom tey bu karaw gi xasanoon ba di la sonal mhm. boo ko ci diwoon balaa ma 30 minutes 40 minutes ci kattanal suñu borom day arrêté mhm. beneen bi ci des mooy nga laaj ma ci jëm ci police pour ñu yëkkante waxtu wi ndax xam naa ne lépp mënuñ ko fee eh, kii daal mhm. euh, police boobu wër na àdduna wallaay lancim façon teraanga bu nekk nit ak ma ko ci defal ci police boobu te barke alxuraanu karim lépp plante la ay kànjaak hmm? xeet yooyu rek laay composé te mënal lu xasan xasan heure lum garaaw garaaw garaaw nga ne fu nekk dem naa fa demal nga sangu ñëw diwoo ko balaa ma 30 minutes mu arrêté parce que dafa nekk diw ba pare ñu liggéeyaale ko muy traité wàlla bépp xeetu ndoxam siti tey nee naa la police nga koy diwoo sa yaram day nay yaram bi day liis bu fekkoon ne da ngay sentir sa yaram saa boo xëyee da ngay gën di ñuul di maanaam yaram bi tooki siti bi di ko jàpp mu ko lakk muy ñuul dangay xool ci nit ñi ngay xamee ne yow mii euh, li nga xam ne moom la tooki siti bi doon def dafa ko yaram day nay day dundaat day liis dootoo am benn jafe-jafe ay xasan ak xeet yooyu yëpp dootoo ko gis moom. Hmm. police loolu lañ ko liggéeyee. d'accord beneen bi ci des mooy savon bi nga xamante ni moom nga wax. Hmm. maanaam savon bi ñu ngi ko liggéeyee à base de kanja ak karité moom laa composé savon bi da nga ci teg sa bët. yaa ngi dégg. Hmm. parce que nekkul ne ñun dañuy ñëw ne wax rek ne la lii la lii déedéet dañu lay wax ne la lii la lii la ne la am demal nga xool ba xam liñ la ciy wax da nga ko gis ci biir wala déet. yéen kay mbokk yi naa leen taseel yëpp. jeex na bu baaxul ma génn leen li leen sëñ bi doy wax baaxul. wallaay lazim <laughs> léegi nag bi ci des mooy. Ah. Eh. gis nga jigéen ñi nga xamante ni dañoo diw ba bàyyi diw. seen yaram di yàqu wala ñi nga xam ne tey dañuy laal ay diw yoo xam ne day am ay odoricon mu yàq seen yaram seen yaram daa am ay lonet ñuy am ay cere ndaysaan am complexe parce que am na ñoo xam ne fi mu toll nii ay complexe leen bàyyi ci kër gi. Hmm. ku ñu xool rek yaakaar nga ne seen image moom nga gis. Hmm. parce que nañ meloon ak niñ mel tey jàpp leen seen yaram di yàqu mu dem ba def ay cere. di yàq seen yaram nee naa la dama leen fi andil diw boo xam ne diw boobu moom la ñuy wax nes-nes nes-nes sëñ bi fi mu toll nii ma ngi def lu doy waar ci réew mi. Mhm. wallaay lancim te lépp plante laa ko laa ko liggéeyee. Mhm. man nekkul ne damay dem jën samay produit kii nii rek de déedéet plante la lépp ay xob la yoo xam ne dama ko boole. defar ko ba mu baax ñu saytu ko nag xool ko bu wér a wér a wér a wér yaa ngi dégg. Mhm. mu nekk loo xamante ni lu naturel la. te képp ku mën ku bëgg ku xoo xamante ne yaa ngi am xeliyaar ñëwal ñu jox la ci nga essayer. Mm-hmm. dama lay jox rek nga essayer ne la demal nga jël feek deux jours trois jours loo ci gis nga wax ma. Mm-hmm. wallaay lanzim. beneen bi ci des mooy. Mm-hmm. am nañ fi savon boo xam ne maanaam yeneen xeeti garab lañ ko liggéeyee. bu ci nekk rek dañ ci cof tuuti. maanaam garab bi ñu naan fuddeen ak laurier ak xeet yooyu moom lañ composé. mu nekk savon bu efficace. boobu ki ko tax a jóg mooy ki nga xamante ni da bëgg sa yaram di tax di liis macha allah. Mhm. loolu lañ ci bëgg ci kattanu suñu borom. macha allah waxtaan wi am na solo te bari nay njariñ loolu donc mbokku internet yi li leen indiloon tey ak Serigne du Fata borom ñetti njëkk yi ak borom taaru yaram nekk ay euh, liggéey yoo xamante ni moom moo koy def te lépp ci plante naturelle yi la mu doon lu am solo lool numéro baa ngi noon di jàll ci suufu écran bi ku ko soxla rek da nga koy woo gaaw nga jëflante ak moom bu boobaa incha allah raw bi doo ko rëccu ndax ñun nee nañ leen du ñu dem ci ku xamul dara du ñu dem ci kuy naxee donc sëñ bi. Mm. ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la bàyyi nga tàggatoo mbokk internet di la doon seetaan. waaw ñu ngi ziar ñëpp di gërëmaat ñëpp mm. xam naa ne li nga xamante ni foofu la ñuy rek. Mm-hmm. mooy euh, xam naa ne dana am ñu la laaj ne la borom ñetti njaq yi. Mm. lan mooy ko sabab. Mm-hmm. waaw ñetti njaq yi nag dafa mm-hmm. nekk ñett ñetti njaq yoo xam ne ah ñun euh, suñu waajur daf daan xetali jaamu yàlla yi. ci benn côté bi ñi nga xamante ni doon am jafe-jafe maanaam euh, rab di leen sonal Euh, say ngelaw seytaane di leen sonal wala ñu ñi nga xam ne dañoo tëju góor ñi nga xam ne dañoo bëgg borom soxna mu tëleen jigéen ñi bëgg borom kër mu tëleen képp koo xam ne ñëw nga ba ñu sóob ci ñetti njaq yi ci kàttanal suñu borom jàppal ne sa aajo suñu borom saafara na ko ñett njaq yi du ñetti njaqi gone man mi koy toog di wax gone laa de waaye ñetti njaq yi maanaam mooma mag mag samay mag mm-hmm. kon képp koo xam ne am nga jafe-jafe ak jafe-jafe bu mu mën di doon ngay damaa tëju ba umu ràpp mënu maa fexe ba am dara boo dikkee ma tijji la ci kàttanal suñu borom incha allah ci barkeb Serigne Saliou kon daal li ñu def mooy xam naa ne loolu beneen <laughs> yoon waxtaan lay doon yow moom da xaju fi duñ fi gëj duñ fi gëj incha allah <laughs> kon ñu ngi leen di santaat bu baax a baax a baax mhm. di leen gërëmaat ci euh, lii nga xamante ni tey euh, defal ngeen ma ko mhm. xam nga man euh, wax dëgg yàlla bëgguma woon sax di fésal sama bopp parce que damaa bëggoon toog sama ruq rek mhm. ah, gaa yu baax ñi ci mel ni sëriñ Mor Mor Mbaye ngéwal gi production. Mhm. ndakaaru maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm. Mhm. di sant euh, ki nga xamante ni sama xarit la ki tax ñu xamante muy Saa Touba. ah waaw moom waaw moom suñu suñu waay la. Mhm. sant euh, Modou Anta ak ñi nga xamante ni ñëpp rek. di ñaanalaat bu baax a baax a baax a baax euh, ñi nga xamante ni tey ñooy samay dëkkandoo. di ñaanal samay rak di ñaanal sama soxna muy soxna. su soo xamante ni ah. samay waajur nekkuñ fi waaye daf maa taxawoo li nga xamante ni noonu la ma yaay taxawoo baay taxawoo ma ko man ak moom rek ñoo nekk ci kër gi ak ay xale yu ndaw macha allah wallaay lancim lu lu ñëw da koy encaissé bëggul kenn mer ci dara ma di ko ñaanal bu baax a baax a baax lépp loo xamante ni mag ma koy ma ngi koy sonn ci man dama koy ñaanal yàlla rek yàlla def fay ko ko ci ak njabootam mhm. ndax ku ma déggal la ku muñal la maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di ko gërëm bu baax kon daal képp koo xamante ni suñu borom def na ne dangaa amee tawat ak tawat bu mu mën di doon rek bala ngaa dem fenn. Mm-hmm. defaatal man defal ak man contact. te xam ne am na lu ma suñu borom dénk. dëgg la kon nag. Mm-hmm. foofu rek xam naa ne lañ koy tëjee di ñaanal nag. Mm-hmm. sama wayjur sama wayjur bu baax. muy Serigne Abdul Fatah. ak jéggul moom laa waroon a euh, tijjee. maa ngi koy sant bu baax a baax a baax. mooy sama Serigne di sama wasila. mooy sama mooy sama ndëgër laay mooy sama lépp. macha allah kon daal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal Serigne Bassirou Mbacké borom euh, Touba Xayra 2 mm-hmm. ak euh, sëñ Moustapha sama xarit ñoom ñëpp maa ngi leen ziar bu baax a baax a baax mm-hmm. kon daal li ñu wax ni rek mm-hmm. xam naa ne dañ koy euh, tënk def ko beneen jotaay beneen rek xam naa ne du yàgg dara incha allah ngeen ñëwaat fi ndax man ak yéen moom njaq yi ah, moom foog ñu jële ko dañuy ñëwaat waaw waaw yëlbu da ci am solo <laughs> incha allah képp koo xam ne taq nga rek ñëwal ma yëlëb la nga dem sa yoon incha allah oto bu taxee sax da nga koy dugal garage vidéo ko mu dem gaa yi nañ bàyyi loolu tey sangatu képp tëju day am tëju day am kon la fi maam yi bàyyi woon ma ngi fi ku ko gëmul nag gëmoo waaye ma ngi fi kon nag ñu ngi waat ñëpp rek mm. ne képp koo xam daal da ngaa am jafe-jafe ak jafe-jafe bu mën ne doon rek man sëñ Abdoul Fatah maa ngi leen di jox samay numéro mm-hmm. képp koo xamante ni soxla nga ma rek mën nga ma ceewoo incha allahu rabbi jërëjëf sëñ Abdoul Fatah jërëjëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah